te ni fan yi moom Papa Ndiaga Konaté yàlla bu mu maruus nuyu ko ziar ko wàcce ko wàcce waaye Papa Ndiaga yal yàlla defal la saam sutura yal na yàlla may la teranga sama baay boo amee ñëpp dinañu ñoom insha allahu taala sa mbaax sa tabe sa yaatu ci bëgg doomu aadama yi ñëpp nga leen di teral boole ci nopp yal na yàlla daal di la sàmm yokkal la teraanga ji at moo dugg yàlla nay gën a neex bi nga weesu ànd ak wér ak gudd fan ci barke waa ja tëdd Medina sallallahu alayhi wa sallam nuyu bu baax sama yaay Adja Farili yaay moom xam naa ni aajono bi yoon farata la nga jël liif ma daal la seeti nga daal door ci digg ginnaaw yaay ca bu ñu jugee ci moom nag daal di sunu yaayu bopp nag Adja Aysatu euh, Aysatu Diop euh, mbedd Fass euh, sama papa Bëya Jaxate nekk ñenn ci man fort ci man lool ñu bëgg ma ba mu jeex tàkk eh, itam ma daal di leen koy delloo ba mu jeex tàkk ñoom ñaar ñu nekk sama ay confident yàlla na yàlla sàmm leen aar leen waaye nuyu bu baax ñang baalo borom ben barak sama yaay gi nonu ak a baax ak geun mok ya kura ndjay ndaysan aja asu ñang ma ngi lay bëgge yaay di la ziaré ñan na la jamm ak salam ak sutura yalla na yàlla daal di len koy euh, defal ci barke yonent bi sallallahu alaihi wasallam aja mati saw euh, ma ngi lay nuyu yaay euh, ziar la wacc la sa wacc waaye nuyu ñi nga xamanteni tabarakallah do na naa mbégte lool ñu tok ak man mooy subaanu ramahiyu yi nga xamanteni ñoy bobo daayira nek nekk foofu Dakar di wajjal seen bis bobu la tam itam kër gi fay doxé ak kilifteef sha allah amuna yene lol ñu min ñu jakkar lo ñu daal di jaale la loolu nga xamante ni seen bis la ay tamit bu borom kër ne waaw ñëpp rek dañuy daal di wax waaw nuyu képp koo xamante ni heure bu baax bi da ngay topp oustaz Mouhamed Mbaye bu ngeen bëggee yaram wi daal di tàng nag tegal leen ma Seydi El Hadji Malick ma daal ko bëggee kaay leen ci waawan am na ndam ku fa dem xam yone doo sellal sunna muy danay yare ca loxo yi ca kaw ti waawan woote na dëkku leer baa ngi gaay leen ti waawan am na ndam ku fa dem xam yoneen waaw waaw doogu faama yaa baa Maodo sellal sunna muy danay yare ca loxo yi

ci moom déggal waaw waaw mbooleem ña jiitu woon ñëpp way nañu ko way leer seex saat bu way na ko mooy sa Sunnah Maodo sellal sunnah wa maidana doona ya yaa sunnah tema te ma taxawlu sax mënuma xuus ci batin ba xawma ko maidana doona yonen xam naa ni bu ma dina garaaw lool nit dina ci di nga fekk bu metti nga ngëneel li mu ñu indil dafa yombul bu leen xamal ñu Cheikh Tidiane ak waaw waaw Mama Laaji Malick Sy ak xam Cheikh Tidiane ba muy way Cheikhuna Ahmad Tidiane Chérif ca wayam ma nga xamante ni ma ngay ziyaare képp koo xamante ni moom Seydil Hadji Malick ya ngay ziyaare Cheikhuna Ahmad Tidiane Chérif waaye itam daal di taxaw ci buntu yonent bi ni yëlbat ni Cheikh Tidiane ba max naa ko a doom ju baax ji Cheikh al Khalifa Serigne Babacar Sy mu ngi noonu mu daal di jagoo Cheikh Tidiane Alaaji Malick daal di jagoo bi nag ñoo fi ne maa lanaa fil kawni si wa rahmani wal moo sellal sunna ki mooy doone yoon yaa sellal sunna ku Maodo mu ngi noonu émission tay bi ma daal di ko jagleel sama xarit sama seex oustaz Babacar Dieye borom Thiès maa ngi lay bëggee kontaane la joyeux anniversaire sama xarit happy birthday to you dundal lu bari aydu miladika aydun saidun wa umrul madid bi jaahi taaha sallallahu alayhi wa sallam may naa la ko soppe yonent bi dekkal na daara yi ak sunna su yonent waaw waaw waaw waaw waaye du ko fàtte mukk fu ma tollee foofu xel mi day daal dem ci moom sama doom ju jigéen jooju lay a ah, Xadi Jàllo bëgg naa ko Golf Sud taaw bu jigéen doom bu jigéen maa ngi lay ñaanal jàmm ak salaam ak sutura yal na yàlla daal di la ko defal a ah, yow it saa yow ma déggee kontaan waaye itam saa yu ma gisee message bi xol daal di sedd bëgg naa la doom kontaane naa la doom yal na yàlla sàmm la doom li may wax saa su nekk jàng laa bëgg ci yéen ak kontaante waaye tamit nuyu Lamine Samba daayira Ihsan ah, zone ñu lay ñaan Euh, ziar euh, man ak Moustapha Diakhaté ey maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax ay Ndeye Fatou Samb ñooñu kenn la ñu ci man bëgg naa leen euh, ziar naa leen ñooñu mam ay mention spéciale rawatina Ndeye Fatou kenn la ci man yàlla ko dogal heure bu baax bi bu jotee Oustaz Mouhamed Mbaye ngay dégg muy bégal képp koo xam ni bëgg nga nabbi déggal Ndiaga Samb billaayu jur gépp benn la waaye sàmm wuute na Mame Maodo wàcc wàcc na boo ko bëggee dégg demal dugal ci bindum Serigne babakar taxris ba mooy Seydil Xaaji Malik ne nako bay bàyyi nga ñu ni ko xalifa bindal mu ne sama bay abratta kulla janaanin dabukal jafala wala sa fi ihsanika naqara ay way bay abratta seral nga kulla janaanin bépp xol do talibe bu la bëgg yow alhaj Malik dabuka sax mbaxa jafala warna aduna wala sa xamulo alhaj Malik jamais de la vie naqara sette fi ihsanika ci sa mo alhaj Malik noy def mu ni ko yaa khal di kon déggal njaga lamuy wax mawloo sellal sunna mooy doonay yoneen be xam naa ñool faama waa ca nga dëgg la kenn gisu fi sag ma waaye ku doom koy baayam alaaji Malick ayca bu ma waree tàngal yaram wi faaw ma daal di ko déparé noonu daal di nuy sama xarit uh, borogóoru Manzar ak Suraya Imam Mansour Seck xanaa daal di daw daal di xooli loolu nga xam ne mooy picc mi course yi ñu daal di may wax fu yaa ak fu xat fu nu mën a jaar ndax kat uh, télé bi dafa mel ni tey le 26 uh. ayca weer waa ngi waaj a dee cin bu naree neex bu baxee xeeñ picc mi course yi picc mi coursier moo leen di may trafic Moira Mature. salaamaaleykum. salaam Oustaz Mohamed. sama tërëndoo de dama laa bëgg te yàlla tax. waaw bu ma la gisee rek sama xol bi day daal di sedd. alhamdulilah noonu la xam naa loolu baax. ndaka bëccëg gi tey. waaw xanaa sant yàlla rek. Eh, yàlla na sant gi jëm kanam. alhamdulilah. bëgg naa la kontaanee la bu baax. waaw fii la tey yaa ngi fan nu dëkk bi mel. waa eh, jamono fii tamit nii nag eh, maa ngi nii ci rond-point place de l'indépendance. Mhm. waaw. ndeysaan tey nu foofu mel sama xarit. waaw fi nekk boo xoolee dem beeg dikk bi boo am na oto yi nga xamante ni ñu ngi jógee ci rond-point bi. Mhm. jël li nga xamante ni mooy ponti bi bu ñëwee au niveau du rond point dina xaw am euh, tuuti taxaru parce que li ko waral am na benn agent de la police boo xamante ni mi ngi nekk foofu di régler circulation am na ci oto yoo xamante ni ñu ngi wër rond point euh, place am na ci yoo xamante ni ñu continuer pour a am na ci yoo xamante ni tamit euh, oto yoo xamante ni ñu jël seen droit tey continuer tout droit mën a jaar côté palais continuer remonter jëm ba hôpital Dantec wàcc côté assemblée bi li ma la mën a xamal daal mooy fii parfois nag. circulation euh, bi xaw a am euh, tuuti arrêt tuuti kii parce que li koy waral nit ñi jàll passage piéton yi moom mooy waral place de l'indépendance rond-point yi parfois am ay tuuti daaxirlu mais ni weer wi sore nii daal mën naa wax ne oto yi ñu ngi raam nànk par nànk waaw ñu ngi raam par nànk nànk ñu ngi raam par nànk nànk xam nga nag damaa julli fajar tey tërandoo waaw daal di wéer sama ginnaaw gi rek rëcc nelaw bi may yeewu daanaka 9 h laa yeewu rek daal di daw génn du ñàkk ñu mel ni man fàtte seen i këyit ca kër ya loo leen di fàttali. waaw comme li may faral di wax rek yow mi yor oto bul di fàtte di takk sa ceinture de sécurité rawatina yow di fàtte yi lu war la xanaa di la bàyyi ak auditeurs yeeg auditrices yóbbalu bés bi. mbaa xam nga ni tey daan dara neex ndax tey laal xames. ay ca gaawal takk écouteurs yi jaajëfal naa la sama tërandoo wàcce la sa wàcc wàccuwaay sàmm la moom yàlla ca kaw ca kanam avance arrière ci barke yonent bi ndénkaane gi nga xam ni moom la fi mag ñi bàyyi ci kaw tali bi trafic routier yóbbu lu bés bi. sëfoor si nga xam ne ñooy indi nit ñi ñu xam bakkan nu mu toll ci yàlla bakkan woyofal nañ ko lool bakkan woyofal nañ ko lool te bakkan woyoful ci yàlla. ñuy daw bay jaar ci suuf di dublante ci sunu biir nañu daw ndànk rek daw ndànk dal ndànk àgg fa nga jëm ndànk. picc mi course yi moo leen may. trafic routier. ki mooy picc ne mooy ramatu ne. da ngeen sonn ci jaabante bu dul jeex di def ay course di dem di ñëw da ngeen sonn ci di tàkk ci embouteillage yi fu ngeen toll da ngeen jaaxle lool ti di xaar benn technicien boo xam ne du ñëw mukk fu ngeen toll da ngeen di tardé seen i rendez-vous yu am solo yi am nañu solution bu simple pour yéen woo leen picc mi coursier. ki mooy picc ne dafa xonqee Petimi Coursier c'est un service bu bees bo xam ne ko momal sen bopp pour livraison ci nu mu gën a ci Dakar ak ci banlieue bi yépp lu ngeen bëgg yobanté yóbbante Petimi Coursier mi ngi ci sen wet da koy jël ci fi nga né yóbbu ko ni mu gën a gaawee bu la nexé loo bëgg jënd ci supermarché et grand magasin mu dem jëndal lako ko bëgg jënd ci pharmacie wala ci restaurant yi mu jënd ko indil la ko Petimi Coursier amna tamit service de dépannage express lépp lu yàqu ci sa biir kër Petimi Coursier ñew défal lako bo soxla ay installation informatique wala installation électrique wala sanitaire wala plomberie Pitchmi day now ñëw léegi Wallenkoti 77 966 69 69 ñu 7 jours sur 7 8 heures 23 heures mën ngeen télécharger application My Pitchmi. Ti Play Store wala Apple Store. graphique trafic routier xibaaru talibi, les lépp lu xew ci tali dinañ la ko dégtal ci trafic routier waaw bés bu nekk 8h 10h30 ginnaaw xibaaru 12h ak 17h circulation bi fan moo am embouteillage fan moo yaa fan moo féex ak it fan moo xat ñu ñëwaat ak yéen ci code de la route ak taxawin gi nees ne nit war a mën a taxawee ci kaw tali bi tamit kàddu mag ci FM ci wàllum sécurité routière ak karange gi ci kaw tali trafic routier xibaaru tali bi ci seen rajo Asfiyahi FM. oto yi am jàmm chauffeur yi am jàmm organe oto bi am jàmm tali bi am jàmm rombante bi jàmm nekk ci dabante bi jàmm nekk ci jiit léegi ci tali bi jàmm nekk ci. Asfiyahi FM leeru diine ji ak tariixa bi. publicité sur Asfiyahi FM. ci kilifteefu Serigne Babacar Sy Mansour général de Tidiane ci présidence d'honneur de Sa Majesté Mohamed VI buuru Maroc son excellence Macky Sall président de la république du Sénégal ci teewaayu njabootu Mohamed El Habib at Tijani bu Pikine ak mbooleem Khalif ak yi Tijani am ci imam ratib bu Dakar imam Ali Moussa Sam... coordination Tijan bu Dakar ñoo di wo ci 39e édition journée Cheikh Ahmed Tijani Chérif radiyallahu taala anhu kagn la samedi 28 ak dimanche 29 décembre 2019 ci grande mosquée bu Dakar programme bi ni vendredi 27 décembre bu 17h jotee danañu amal Hadratul jumaa bu Mak, fofa ci grande mosquée bu Dakar samedi 28 décembre bu 16h jotee C'est la cérémonie officielle bi di programme bi dimanche 29 décembre bu 17h jotee ci téwayu délégation bi jógee Maroc oustaz Abdul Aziz Fall dana fa amal waxtan wu am solo thème bi moy bëgg sa réew ak kët ci valeur l'islam la bas coordination Tidiane de Dakar jagleel ñaari bis sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum miñ dul fàtte ba mukk mooy parrain bi marraine bi di Adja Fatou Diop daayira rendez-vous baa nga noonu di bis bu am solo di journée Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu samedi 28 ak dimanche 29 décembre 2019 ci grande mosquée bu Dakar bu ko kenn tardé laa tajjaro yàqu si jëkkante leen jëm xew-xew bu mag ci ndigalu xalif général de Tidiane sëriñ Babacar Sy Mansour sëriñ Pape Malick Sy yore kàddu kër maam alxaaji Malick Sy radiyallahu taala anhu sëriñ Maodo Sy bu alxaaji Abdoul Aziz Sy Dabakh sëriñ Mbaye Sy Abdou sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy borom daara ji Serigne Babacar Sy Al Amin Serigne Moustapha Sy responsable dairatul Moxtafin Serigne Modou Ndiéguène xalifa bu kër Maam Alxaaji Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck xalifa bu Thiénaba Alxaaji Xalifa Kebe représentant Tiwaawan nekk foofu ca Thiès Soxna Kalambay présidente nationale bu daaira Niamati Serigne Mouhamad Fata Sarr responsable abnaa u hadratu Tidiane bu national Oustaz Adi Mbay bu Alxaaji Ndiasse Mbay radiyallahu taala anhu moom mi nga xam ne mooy coordinateur bu Abnaaw Hadratu Tidiane bu Thiès mooy ànd ak mbokku julliti ak mbokku taalibe Tidiane yi di leen yëgal hadratul juma bi nga xam ne moom la ñuy amal kañ la aljuma tolloog le 3 janvier ñu koy amal fii ci promenade bu Thiès ñu ci woo mbokku jullit yëpp bàyyiwuñu kenn xadra bi nag kan moo koy teewee ah sëriñ Pape Malick si bu sëriñ Babacar si radiyallahu taala anhu waaye nag ñuy sàkku taalibe Tidiane yëpp le 3 janvier. ñu fekkee xadara boobu waaye nag bu ñuy ñëw ñu ngi tàmm ñu sol lu weex tàll bu di sababal leen kebbu leen sukkandikoo yëngu yëpp sababal leen kebbu leen sukkandikoo yëngu yëpp mbokk yi ngir fas lawal ay bànqaasam ngir mën ko am fu nekk ci groupe asfiyahi tv asfiyahi fm 97 dakar 103.9 point 9 ubbil nañu buntu bépp jullit ak mbokku taalibe tidiane yi yàgg am yéene dugal seen loxo ci asfiyahi gën ko si ji participer par orange money da ngay 10 144 10 62 10 11 10. nga di touche appel Sonopé nga code bi, 34 26 87 Dadi si tek montant bi nga def si Asfiyahi Deng ci bëgg am ay mën nga 33 820 11 00 wala 78 459 30 30. Je suis Tidiane. Je m'engage. mbokk yi saxoo seetaan asfiyahi point org leeru Tiwaawan rawatina association yi daaira yi moo xam daaira entreprise la wala daaira traditionnel le premier site de référence sur l'islam et la Tijaniya taxaw na ngir fësal seeni événement ak seeni njaay ci njëg yu yomb ñii waajal seen événement bëgg mu siiw wala bëgg mu fes lool Asfiyahi mën leen defal avant première yu mucc ayib bannière publicitaire ci site bi spot publicitaire reportage photo ak vidéo retransmission en direct ci seen événement ñi yor entreprise yi bëgg fesal seen commerce ñëw leen ñu defal leen publi reportage spot publicitaire bannière publicitaire ngir bépp leeral jokkoo leen ak suñu service commercial ci 78 459 30 30 78 459 30 30. sant waa asfiya am solo la ñu asfiya ndax lu baax boo ko dee def da ngay bëgg mu siiw asfiya yi Boki, une radio na FM 97.3 Dakar 103.9 Tivaouane ibbil na service commercial Wow, service commercial bu Asriya FM daal dina leen Moham ay buntam moo xam spot publicitaire bande annonce événement communiqué avis de décès Manam Tagué, avis de perte madame bagage yu le réer wala lu mu mënti don mën nga ñu le ko FM 97.3 Dakar

أسفياتكو اف ام ليرو دينيدي التاريخ بي جرت انت الرسول جرنا ما قال يا جرى ما قال نبي جرنا ما قال Publicité sur Asfiaï FM. من شكوى الى الله قربتي فما لي غير الله جابر كسرتي فلا بد من شكوى ووا إلى الله قربتي وخرعي باب الغير يا ربي لم يفيد لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي ولا بد من شك yaa ngi koy dégg noonu ay ca na ñëpp wax amin ñaanuk maam Cheikh Seyd Alhaaji Malick a radiyallahu taala anhu fala budda min shakwa ilallahi kurbati waaye ma nga noonu de sama xarit bi tey may naa la émission bi spéciale ñett laa koy may Ndeye Fatou Samb borom zone A zone B Ndeye Fatou naa ko kontaane ko yow laa may émission bi tey ak papa Beya Jaxate ak sama yaay Aysatu Diop yéen ñett képp rek laa may émission bi a bëgg naa ko ñaanal ko jàmm ak salaam ak sutura Ndeye Fatou kenn la ci man bokk na ci ay cummikaayu Oustaz Mouhamed Mbaye ndeysaan léegi-léegi nag Ndeye Ndeye Fatou a ngi noonu Ndeye Fatou maa ngi lay ziar ci yow Mansour dinaa la présenté Ndeye Fatou Samb Ndeye Fatou Samb daal zone bee la nekk ay Karim Fafana xam nga Karim Fafana ministre Ndeye Fatou Samb moo tax ma bàyyi ko bàyyi naa bàyyi naa ay Karim Fafana yooyu bàyyi naa ay Moustapha Diakhaté ñooñu ñëpp bàyyi naa leen Ndeye Fatou Samb sa remplacé nga leen may naa la sama émission bi tey yow ak sama yaay ay Aïssatou Diop ak sama papa ba yaa jaxate yéen laa may émission bi tey waaye nuyu waa marché darkase bu baax a baax a baax rawatina Pa Diouf di ko kontaane di ko bégge bu baax a baax a baax mu ngi noonu Adja Bale yaay Mouhamed maa lay ziar euh, nuyu ñoom euh, am euh, sama wat watkat yi nekk foofu am war naa wattu si nag ñoom ñëpp nuyu naa leen ziar leen gaa yi toog foofu place madame mbay gars yi ci bunt bi ñëpp ziar naa leen wàcce leen seen wàccuwaay mën noonu naa jaar ci tur kenn par kenn ay tamit bu ma nuyoo am rek mu daal di ma fàqal nuyul ma gaa ñi nekk foofu a ah, man ak ñoom ñoo bokk benn groupe sama ay xarit lañu sama waay lañu ah, jàmm ak salaam sutura yàlla defal leen ko waaye way am solo ngi nii Mansour déggal فلما بدا لي أنه sama rabbu yow yàlla law laay waxal man Seydi El Hadji Malick bi ma leeree ni amul benn dawukaay boo xamante ni nit mën na fa jaare raw bu dul sa buntu ci laa tàllal sama ñaari loxo man bàyyu Cheikh Al xalifa Seydi El Hadji Malick si indi naa doye di waaye yàlla di la ko wan indi naa ñàkk kattan yow yàlla di la ko wan lenn rek laa bëgg maa ngi ni taxaw ci sa kanam yow yàlla ma ziltu musuma dañ waaqifan di taxaw ci sa buntu zalilan di toroxlu xaqiran di soxloo Euh, Moussa Issa Ndes soxlaw kulla wi jixati yow yaay sama borom yaa rabbi li yaay wuyu képp ku la woo man Seydi El Hadji Malick ñaan naa la yow mi nga xamante ni yaay suturaalaate waaye yàlla nga ma suturaal samay rëcc rëcc eh yow yàlla ilayka khawatiri ma ngi lay ñaan ci barke kan mun yonent bi sallallahu alayhi wasallam degal ji malik ma ngay ñaan wax leen amin wayi ya khayyumu ya allah rabbana yow yalla yow lay waxal ilayka tawassalna jokna ci yow way fu may jaare ji malik ni bi khairul bariyati ci kan wa shafi'u fina kan lay don fi liqa'i wa kulluna waye bu nu dajje njol makka yowmal khiyam si wal hibb mawsufun bi ra'bin wa ra'batin mam adama ngok idrisa ngok huuda ngoog yunusa ngoog walluuta ngoog ñooñu ñëpp ñaar fukki yonent yi ak juróom yi nga xam ne ñoo ne ci alxuraan ñoom la laaju Maalik di ñaane yàlla maa ngi lay ñaan ci barke Daawuda maa ngi lay ñaan ci barke Suleymaan ak Yuusuf maa ngi lay ñaan ci barke Isxaq maa ngi lay ñaan ci barke Ismaayila ñooñu ñëpp ci seen pàkk maa ngi lay ñaan ci barke Muusa maa ngi lay ñaan ci barke Haaruna ma ngi lay ñaan ci barke ayuba yonent yàlla yasa ma ngi lay ñaan ci barke zulkifli ma ngi lay ñaan ci barke yonent yàlla yaxya lay ñaan ci isa oh. yonent yi kenn sama góor gi alaaji malik waaye tamit dem ba pikin nuyu bu baax a baax xujja fi nga dëkkee problème bi mooy ñemewu ma fa xujja jóob xam nga côté tribunalu pikin yooyu ngay dëkkee yooyu malay lay nan xujja laay sama benn soppi wuur ay tribunal ak yooyu xujja da ngaa war tuxu jógee côté boobu bu ko defee dama lay mën a seet si nuyu ko bu baax a baax mook jeenaa sama doom jooju soppe Serigne Babacar Sy ciy way bi moo neex de déggal والسماء وما حوطها فلتشفنا كل علتي لك الخلق يا مولاي والأمر كله دقل سما غورغي سيد الحاج مالك لمي واخ مالا واخ وخ لولو مشارب الخضرتين لتشفنا نيان العزيم بحجاب الخلب مع كل قسوة أمين يا ربي مضى الدهر والأيام وزن خاسل sama yaay bu baax maa ngi koy nuyu yaay Ndey Saar yaayu imam Mansour Seck euh, borom Suraya ak Manzar sama yaay joojule góor bu baax bi jotee ci salle bi lay toog di déglu doomam ji Oustaz Mouhamed Mbaye de ko bégg di ko kontaane bu baax a baax waaye Adja Assu Ñang euh, yaay Assu Diop euh, sama baay bu baax boobule alxaaji baay Cheikh Ndaw maa ngi koy kontaane ay baay Moussa Diène maa ngi lay bégg di la kontaane rawatina baay Birane waaye ñooñu ñëpp bàyyi la nu yoo xam ne di nuyu Ablaye Sarr ak Tidiane di sama soppe di sama xarit waaye neex na loolu déggal wala ayaamu wasan مملوك نفسي وشهوتي ألا عمر أه. أطاع رجوعه فأرأب ما أسأيت ساعة غرتي فلا بد من شكوى ومالي خير الله بجابر كسرتي مما ودنين لقد عمر ساعة منه تشترى شلال لا نون بملئي الأرض أية ضيعتي ولكنني أرجو تلافي ربنا لا وهبني هالكا أي هلكتي على همتي إلهي علي li gën a jafe li an sirtu ma doon xurran xaalisan kulla wijhati mun si ba bàyyi sa micro ah ah xayraka artaji sama waaw sama góor gi mën a ñaan Seydil Hadji Malick waaye wax leen amin yàlla na yàlla nangul ñu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu mën a ñaan ñaan na ko Seydil Hadji Malick la mu mën a def tawassul def na ko marsiyaat ya def na ko oh. عطائك معدل فهبني أن أرضى بمر القضية وهب لي في الأمر والثبات عظيمة على رشد هب لي شكر من كل نعمتي wa asaluka taqwa wa xusna xusna ibadati loo ca teg wa nayla marami ya ilahi wa bugyati ak lan wa asalu rabbillah loo koy ñaan xayri kulli ma saal bi alimun rawsi imadi wa nusrati nga ne lan audu bika taqwa kaza wa min charri kulli ma saal alimta bi ya rabbi salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw salaamaaleykum waa asfiyaay waaw asalaamaaleykum waaleykum salaam wàññi rajo bi nekk sa ginnaaw asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatuhu waaw ça alhamdulilah kooku man la sa yaay ah yaay Adja Aminata yaay Daaru Habibi ñu ngi lay ziar bu baax a baax. macha allah alhamdulilah ça va waaw démb euh, dafa amoon euh, ci euh, ci li ci bàyyi woon âge. Ndiaga Samb. ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ma doon ko laaj mu doon animé bu tudd Papa Lamine Gueye. bu bu bu bu bu xam nga mas naa la ko ci laaj mais xëj na xëj na xamuloo woon ci ma doon kii noonu. dëgg la moom laa bëgg numéro na ci kàttanu yàlla waxoon naa ko imam tamit Babacar Babacar Mbow. dama dama ko soxla ak Papa Cissé Dundé parce que moom. ba ñu doon ci sëñ Mansour suñ papa sëñ atam allah. ay ca boog loolu de moom bu ma génnee léegi Njaga Samb laay xëcc léegi mu daal di génne numéro téléphone bi daal di ma ko jox yow yaay yaayu daaru Habibi loo bëgg rek. waaw la yomb. jërëjëf waaw na ma ko jox parce que bu di loolu bu ma mënu am numéro bi. waaw léegi ngeen tegtal ma fu mu dëkk ci tëngeej man dinaa je vais faire un déplacement pour dem seeti ko ci yàlla yow loo bëgg nay jàmm ñaari numéro yooyu yëpp laa bëgg. Jinge gis naa ko 24 décembre bi ñoo nekk waaye dama fàtte jël numéro am waa Diop yow laa ko waa kon léegi yow utal ma ko Imam Babacar Niang waxoon na leen dem dem ba dugg naa ci émission am. macha allah Samb bon mais ba ba ba Aji Mansour mi nekk ci technique jëleen sama numéro. dama leen ko ñaan ci jëmm yonent yàlla Mouhamed alayhi salaatu wa salaam. Mhm. nga utal ma numéro président Papa mhm. maa ngi koy toftalee sax bu suñ papa Serigne Cheikh Al Maktoum. incha allah loolu koy na sa xol sedd léegi rek ma daal di ko dox. <laughs> moom moo ñu boole woon ak suñu papa suñu Mansour borom daara yal yàlla yokk leeram. amiin waaye amiin yaa rabal alamin waaw léegi léegi léegi quest fait boo génne bu ma génnee midi lay pare incha allahu taala bu ma paree dinaa fexe ba jël numéro njaga jox la. su fekkee su fekkee aussi moom mi may dégg ndax ma joxe sama numéro man ma gëtuñu comme ça moom mu oo bàyyi ma joxe ko. waaw incha ah. أصون بك العداء كذا قرنا هنا وإياك أرجو من ولاء الأحبة ومن قربائي يا إلهي وسيدي لك الحمد مما ليس تحصي قدرتي ولا عده عد عوائد فضلك العميم ومن عوارض رزق سترتي wa alwaani ma awlaytani rabbana waaye ci barke ñaan googu ci laa koy joyeux anniversaire bu baax a baax a baax a baax euh, daal di ko wàccee wàcc waaye mu nekk euh, sunu rak euh, Adja Soukay Ndiir depuis point Adja Soukay maa ngi koy joyeux anniversaire di ko happy birthday to you nag di ko jaarale ci lammeñu sama xarit boobu la ñu nga xamante ni waa daayira bi xam naa léegi ñu daal di ñëw daal di dugg si a subbaanu rimaaxiyun ñu nga xamante ni wax naa leen ko sànq ma leen rimaax la nu dénkoon a méttee métti métti da ngeen koy yéeb te ma sama taabul boobu du tëddukaay wax leen ko na jug fi mu tëdd ay ca di leen bëggee di leen kontaane ñoom ñëpp waaye tamit maa ngi koy joyeux anniversaire bu baax a baax a baax a baax a baax moom Adja Sukkay Ndiir Adja Sukkay maa ngi gis message am sax joyeux naa la anniversaire di la happy birthday to you ci barke turu Binte Ndour باسط اليد في الندى وغير مداد يا إلهي بحكمتي وفي الأمر وسلطاني والملك لا منازل سيد الحاج مالك fayassir bi munyati bu la ci saa nga dadima di ma ligne bi ci 88 628078 ah, ah, dama nam soppe yi bu nu ñewé rek ma daal di leen jël wax ak ñom rawatina sama xarit yoy nga xamanteni ni ña nga ba bitim rew ah, ñi ñu ngi Milan ñi ngi France ñom awa rawatina ay ñom ñi ñep daal di leen ziaré wacc leen seen way salam ak sutura yalla defal leen ko Mansour tay diguma sama bokk Seydil haji malik tamliku tamliku ma tasha wala yamlikuna minka ghayra al mashiati illa bi qutbil ayca 88 628 0078 salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ayca boo ma wàññilee rajo bi ci ginnaaw rek dinaa kontaan. aywa leen di bëggee leen ziyaara. ndeysaan ñoo la raw lu bëree bëri. Seydina Mouhamad. waaw sang bu tedd bi. ñu lay topp ci. oh mu ngi noonu xam naa dina dellusiwaat ci 88 628 00 78 moom mottalil la ko da dinaa la béggee ah, kontaane la bu baax a baax tey ndeysaan ñoom ñaar nag dañuy noos sama ñaari naar yooyu la sama yaay ak sama baay salaamaaleykum خلفني فأبشر يا مريد بنيل شيخ فريد العافر كنت حفي زماني سباني يا ما سباني يا ما سباني والله اتا 98 018 منصور كو فير لو خاسي دا ngay وور تا تاي دما سون السلام عليكم السلام عليكم اي تي خمنا دنا ديلي سوات ليغي منصور ييغي ديف ييب خمنا كو اي فير لو ما اي سباني يا ما خمغي تا تاي دما سون والله ليغي دا ngay باي نياتي اوديتور بون دوغي ني نako فيري ما فيري كو امول بروبليم xalifatu fatu cheikhina nahja tijaaniya déggal loolu salaamaaleykum salaamaaleykum ay ca wàññil ma rajo bi ci sa ginnaaw sang bi salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah aj aj Mouhamed Mbaye waaw loolu de la yàlla def bëgg naa ko lool sama góor gi maa ngi lay ziar maa laa delloo ziar bu wér a wér Mohamed Sylla ndam la doon ca gi wax nga wax nga wax nga wax nga ngi lay ziar wax nga ngi lay ziar lay ziar bu amin ya rabbal alamin Allah rabbi ka amin ngi may woy fan jamono ji ngi la ni Dakar jamono ji mais waaw ah. ma lay laaj ma firi ko wala ma bàyyi. Ah? dafa teg léegi benn woy bu sëñ baabakar woy Seydil Hadji Malick. waaw. ma lay laaj ma firi ko wala ma bàyyi. waaw boo paree nga firi nga ah am naa ci ndigal. Ah. waaw am am nga dégg la waaw bu ma amee bu ma amee fukki nit yu ko wax rek ma daal di ko firi Mansour insha allah rabbi maa ngi nuyu nag seen seen lu sekk bu baax a baax nga wax ñu wàllu canaba la dokke ci boole ci kër seen nasiya masha allah taala wàllu canaba la dokke maa ngi jaar bu baax seen jibilu sekk def seen ibrahim ndeysaan ndeysaan di ñaanal bàyyi sax na fi jàmm ñaar seen baaw ko ci moom amiin yaa rabbi ñaan ko yëpp waaye nag yàlla dañoo boole bokk ci yow am fa lañ jàngee daal ndeysaan ndeysaan ndeysaan wàllu wala ndeysaan ndeysaan ndeysaan ayca maa ngi kontaan bu baax a baax ci yow ayca mu ngi noonu bégg naa ko kontaane ko 88 628 078 nuyu sama nabien boobu la Demba Ñang nabien boo xam ni boppam rek lay ñawal ay dootul ñawal keneen ku dul boppam nuyu naa ko ziar ko rawatina caabi jaw nekk foofu la euh, bégge ko bu baax a baax ndokkeel ñi nga xamante ni ak génne nañu ci feetu 24 décembre yi waaye jagleel ko waa jëtëdd Medina sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah oustaz waaw ñoo ngi ziar de. maa ngi delloo ziar. na yàlla nangu ñu ngi lay ziar baax a baax a baax. maa ngi lay delloo ziar wuy ma ci biir ziar boobu. oui. ziar ma ci sama yaay ju baax a baax a baax a baax a baax. ba nekk Pikine. sama yaay Ndeye Sarr. waaw yaay Imaam Mansour sekk nuyul ma ko ziaral ma ko. ñoo ngi ziar ñëpp yaay Imaam Mansour Seck ñu ngi lay ziar di la bëggee di ñaanal la yàlla gudd fan am ak wér. waaye amin waay sama xarit kooku kan la. Mouhamed Silla. ah Mouhamed a ngoog man tey sama tërëndoo rek ñuy dugg. taaliba sëriñ Mansour Fall bu alaaji Mor Fall ci yombal am nga fayda de maa la wax loolu ku wéerul fenn fenn yomb bu ma la wax loolu maa ngi lay bu baax di contané dila ziar dila ñaanal téméré at yu commencé ren way amin way yé eh, kon nga gis pa bu maget bu jantal ndol ci kaw kay am bi jaaw si kim bu weex tal té rafet do taalibe cheikh barké yonent seex yow taalibe cheikh mu ñaaw amul avut avut do ko dégg fala tara ahadan waw min alihi abadan uh-huh. illa wasimahu fi husnin wa tazini allah sëñ Babacar neen taaliba Seex day leer day rafet billaay billaay billaay foo ko gis mu sol lu rafet kañ parfum bu neex waaye ma wax la dara waaw da ngaa mos a gis paawu taalibe seex buy bu buy naan sàngara doo ko dégg da ngaa gis paa taalibe seex bu yor yére xotteeku doo ko dégg deux heures du matin jëm trois heures du matin lampe boo gis muy tàkk nga dégg taj taccu kurus taalibe kan la taalibe seex waaye ka daa fu san dallat foofu laa bokk man waaw la wax lii am nga fu la de bégg naa la lu bare bari sama waa ji di ñaan yàlla ñun ñii mu def na ko amin yaa rabbal alamin sama wajur yi ma leen di ñaanal gudd fan gu ànd ak wér ak nga am fayda boole ci sama es di ko ñaanal say wajur yooyu nekk yëmbal maa la wax loolu amin ya rabbi keroog dama kontaan bi ma déggee nga ni boo xëyee wala nga dem fenn da ngay jaar kër ga li nga dekk sa poos nga jox ko sa yaay mu jox ci góor gi ma muhammad waaw tey daal laa fa jaaroon ndax tey waaw dama julli fajar noonu biir bi di xaw a metti ma toog ba ma wasifa ba par rëccale nelaw 9 heures 8 laa yeewu yàlla na la yàlla saafaraal tey kay xam ni bu doon télé lañ ma boo gisee sama yaram bi ni mu ngay xam ni damaa génn rek taal oto bi départ yàlla yàlla defal la jàmm ak sutura ak teraanga amin waay yaa rabal alamin ñoo ngi fi daal di sopp Serigne Babacar lool lool lool maa la wax lool ku leen sopp sopp naa la barke alquran bëgg nañ la de amin ya rabbal alamin nga ñaanal ma sama taal sama Serigne boobu alaaji Mansour Fall ndeysaan yaayam di maire Ndey Njaay aha doom yi borom gol bi ndeysaan yàlla na ko yàlla amin ya rabbal alamin alaaji Mor Fall sunu baay boobu tëdd Tiwaawoon yàlla na ko yàlla xare àjjana ba mu gën a kontaan lool amiin yaa rabbal a di ko de ñaanal ñëpp ñëpp di ñaanal nag képp ba boo tuddee turu dëkk bi day jooy yàlla na ko yàlla defal la yàlla na ko yàlla yokk sutura amiin yaa rabbal alamin képp ku sant Silla daal ñu ngi lay ñaanal xéewal ak ku sant Mbaye ñu ngi lay ñaanal xéewal ah yéen da a bëgg ceeb moo tax <laughs> ay ca ma ngi noonu bég naa kontaan sama waa ji 88 628 00 78 ah xasida baa ngi noonu ñaa koy firi sax ndokk yàlla ma déggaale ko ci am ci njàngat bu bees nuyu bu baax Rama Sow depuis tey moom papa <laughs> ak yaay ñu ngay noos ndeysaan aja de way Ba yaa jaxate fim mu di ma nga ci kaw lool ba teud ak bëgg yapp fajar xalifatu cheikhina najat jaani cheikh alhaaj malik doy waar huwa al-bahr albahrul qidam si mbawaka ne nag géej gu fess la del fala yutama fala yutama mo moo doon kenn ak moom del am waju idal am waaju waaleykum salaam wa rahmatullah eh, ama ku lay wo ndeysaan ndeysaan. borom Dakaaru. ba eh borom Dakaaru ngi noonu. yow tax doo ma tudd yow. waaye borom Dakaaru wax nga dëgg. ah borom Dakaaru borom Dakaaru bu naa def loo bëgg ma bëggalee la ko. non Ndiaga daf ma fajar gi ma sawar. waaw waaw ah, ma dugal deux mille francs crédit. ndeysaan woote ba ngoon jot ah. Eh, ma woon woote mais mais ndeysaan. waaw mais Asia xam nga foog woo. sama doom yi ne ko nuyu leen. ndeysaan dëgg la de. Ah, mais njaga laa koy may njaga. firil ko njaga. loo bëgg ma firi ko. boobu ñu boobu laa bëgg. sabaaniya ma. waaw boobu laa bëgg waaw. ah ma ko mayul man du ko firi de. boobu laa non non dama bëgg nga firi ko parce que dama xool neexul tey trop. ah ma firi la xasam. il faut que may njaga baatam. ndeysaan aussi waaw xam ci li dox parce que dafa yu. yu nekk biir yoo xam ne daf may yëngal. ndeysaan dégg loolu waaw maa la wax loolu de kenn ku nekk lay bëggal de. waaw maay bàyyi maa woo. Hmm? ay maa la wax loolu kenn ku nekk lay bëggal bàyyi maa woo ngi noonu. imam Dalla Zena sa ngi noonu borom Dakar ngi noonu. borom Plateau ngi noonu. ak kan may ko waa HLM. déggal loolu. ñoom Ulay Mbaaw. waaw waaw. ñoom euh, euh, ñoom ñoom Ulay Mbaaw famille waaw waaw. waaw sama jarbaat yi ne foofu yëpp. ay ci mu ngi noonu kon déglu ma rajo la ko firil nga xam ne kenn du Serigne Babacar la mu wax bàyyam Seydil Hadji Malick ayca xalifa nee na waxal bi sama xool bi man sëñ Babacar si ala xatira laa siwa bi ma am ak alaaji Malick xat ka faani doy na ma bëggatuma kenn alaaji Malick laa jël def ko muy première xat ka faani bàyyil ma pare sëñ Babacar ngay waat ana man xalifa wallahi gin ñaa ci yàlla faanin jeex naa fii ci yow bàyyi Seex Seydil Xaaji Malick bët ya ko moom xel ma ko moom ruuga yaa ko moom sama bàyyi Seydil Xaaji Malick ngi nga ma def doyna na may sa premier khalifa man cheikhal khalifa xalifa lam yox bayam allah ji malik muné ibn faashir ya faashir gawal mu'ashir yomi yow an basain bu lu yeex ñu ni ko lolan la muné gawal gaawal ko boko ko wul mu jeex ñu ni ko xalifa lu nuy séddale mu ni inir taftum ndem tànn ngeen bi tansiril janaani ci séddale weti xol bii bu ma ci defee yàlla ak yonent bi waaye xol bi Cheikhuna Tidiane Chérif ay ca gaawal Seydil Hadji Malick ay ki la moom mooy baay bi ma jur yar ma sama baay Seydil Hadji Malick def ci man li kenn dootu mën a def ci man déggal Serigne Babacar la muy wax baayam fa daarik na nga dabaatal bi salimi ci kujaan mat ñu ni ko lan moo ca xew mun yëttihu sawqan ma nga ca àllu ngëlëmte e waay kujaan mat loo ko wax dootu ko déggati mali alaatihi sababati maa ngi ci àllu ngëlëmte yàlla aani yow mi may yedd naan ma defal nank tefel bi nga am ci sa baay daa bari sëñ Babacar Si ni dégguma la tey laay gën a bëgg sama baay Alaaji Malick Si ay eh, ca bu ma jurru woon sax ma daal di ko xool gis li ma gis ci moom daal di ko bëgg waa déggal Sëriñ Babacar la muy wax baayam foofu daani min dawaa i shawqi daa yi nee na ma nga may woo ma nga may saafara moom sama bàyyi Seydi El Hadji saafara soo xamante ni benn feebar laa amoon noonu kenn rek a koy faj ñu ni ko xalifa lan la mu ni sabaani ya jar jar na ma maa la nga xam ni sabaani yi moo ma jar jar waaye maa la nga xam ni sabaani jàpp na ma dégg nga sëñ nga daamu sabaani ya ma sabaani ya ma sabaani xalifa ne ata umuruni ata umuruni ndax danga may digal azuliya yow mi may yedd من شفاء انت سافرة دعنا نان منا ورلو مالك بام نان كم بام ورلو مذكر نير فات تفعل كمام شالله جي مالك دعنا نخ سبب نيلو تخ من شفاء أوكسى خلات شفاء أوكسى سافرة من هو أجلس تكج سه خلات دعنا نان مدفع نانغم دفع نانغم واي ما شفاء نيدو ما سافرة بينو تفعل لا أم جوخنا كغور بتشت تدتي وان سما باي بسير سيد الحاج مالك دعال معاي تير بوبم واي بودي ما بتشي كرام دادي تير تالي بي واي شيخ الخليفة مو باخ دعال لم يخفو شيخ الخليفة أتأذلني أتأذلني دعما يب ak yow sama mbokk fan sif na nga wàññi bi hësa ci lii yedd yi nga may yedd nan ma da ngaa bëgg sa Seydil Xaaji Malik wàññil sa cofeel déglul ma wax la fa inni man Serigne Babacar al yow ma bisu tey bi mustaxilu dama soxla woo waxaani cofeel la bu ma sëkk bu bàyyee ko ci man xalifa jëm sama baay Seydil Xaaji Malik waa sama góor gi du maa ko bëgg alaaji Malik waaye déggali ko sëñ Babacar dox Mansour ak dimension ba góor ga amee woon di joobe bàyyam Seydil Xaaji Malik déggal xasida bi cëm cheikh waaw faruda dellool la allahuma yedd gi nga may yedd laa tum nit xasiiran boo fi yàggee rek perte <laughs> du ma dégg ci dara sama nopp yi dafa tëx déggal fa mu koy dugal ci bayit bi na nabaa tëx na samay sama dégg bi law matti man ci yedd ka nga xam ni waa déggal Serigne Babacar la xani mi ngi may yedd cëm man su déggal Mouhamed Mbaye bu jugee taxaw rek yaram bi daal di tàng émission tay bi may naa ko sama directeur maam Omar Ndiaye ndeysaan <laughs> sabaliyama sabaliyama cheikhul xalifa amaani wa huwa qasra mébét yi boo ci toppee di nga perte dinaa la xamal ni bu fekkee ni sama mébét yi ma am moo la taxaree xañ jàmm naa la xamal lenn fa maa lakk déet la ñeel maa ngi lay bëgg di la kontaane ndeysaan ki ma lancé message boobu rëy na lool lool ci man kilifa gu mag a mag a mag na ma bul tudd tur bi nag waaye maa ngi lay ñaana waaye amin waay baay amin baay ndeysaan amin baay lii nag xam naa dañ ko ko bindal ndax sama baay bii ma ngay bëgg a làq téeméeri at amin waay baay dégg loolu fa abshir bégal yaa muridu yow taalibe bi bi li cheikhin bi nga a sëriñ bu mel ne alaaji malik billahi wallahi ñëw na ci mayu jamonom xam nga tay promotion bu amé Mansour ku lepp dun la dun doo bokk ci promotion bi waye ku jënd am alaaji malik a ngi noonu dëggal seigne Babacar si la koy wax nee ko wala alamul faqih yaay borom mandarga fiq bi nazihu ilmin yaay borom xam-xam bu rafet bi o o khalifatu shaykhina nahja tijani alaaji malik ken nga ci yonu Tidiane shaykhuna Tidiane Chérif la tanal bopom nga bok ci ay leaderu shaykh waye ci ndigalu sang ba ci Medina sallallahu alayhi wasallam deggal seigne sëñ Babacar la wax bayam nee na ko huwal baharu yaay géej gi nga xam ne yaa xaayaan falaa yu tammaa defu likin teente ak yow isal am waaji bu fekkee ne vague yi faadat ñu ngay fuur min ma aani ci mbelli leer ya alaaji Malick bu ñu la jëloon teg ci wetu géej gi saa yoo taxawee géej gi am kër say jug day toog fa mu toog ndax la nga am ca xam-xam ak wilaaya alaaji Malick bu ko gis géej doon joxe xoromam daal di sàlli wo mom al karam moy ko tedd ki al falaayu saaxa deful tabanti ak mom izaru fi'at dem ndéem yi ki téef nanu ala judil yadani ni géej tabe ni aduna tabe ci joxe ngelaw alhaji malik bo taxaw ni ñaar ngeen di tabante doo moromam yow seydil xaaji malik ci joxe sa xam-xam ak wilaya way déggal serigne babakar la muy wax bàyyam seydil xaaji malik si ah bi ñu ne ko lu tax mu ne sama bay wa shaykh mooy serigne bi nga xamni alhaji malik dalilu mo lay tegtal ilal jinaani jeme ci aljana waxna naa leen ko ba tey nan sàngara bokku ci Alaaji Malick tox bokku ci Alaaji Malick bongo bokku ci Alaaji Malick nee naa leen jarte tere waaye xoolal njabootu Alaaji Malick doo leen ci yu ni mel déggal serigne babakar neena sang ngi ni ku kafe ngi ni ki dal mo roy ala sunna ni rasuli ci sunna ndol màkka alaaji malik mu riisi jaani yaa xeetale aji togn ya fi indi salatu fatih mu gëna a siiw yaa indi jawharatul kamal mu gëna siiw astaghfirullah allazi ya ko indi mu gëna siiw bàyyi xalifa seydil malik déggal lol ya serigne bi ya yare kula danin kep ko wa xaasin ak ku sori wal xutu fa li kulli jaani alaaji Maalik yaay ko tuttee fa képp koo xam ne daa tooñ ba yegg si nga daal di ko raxas ba mu set daal di ko teg ci mbalaanu jawharatul kamal mu soppee ko am ca leeru cheikh na ahmad tidiane sharif ya yasqil muridina min kasil usuli ila nahwil muradi huwa himamun tasaamat aliyatun ci lan salaamaaleykum Mansour waaw ku dugg jël ko amul benn problème Mansour doo joxe addiya bu muy fii di nga may baare Yeah. Seydi El Hadji Malick lahuruta bun am na ay daraja moom alaaji Malick yu leer ci diine fu mu ko jëlee daf ko koo teralee al munazzilu zulbayaani yàlla moo jël ay teraanga jox alaaji Malick si innal fadla bi yadillahi ma ngi noonu Cheikh Seydi El Hadji Malick si daal di ko jaajëfal sama góor gi saa yu ko tuddee sama xol daal di sedd dama koo bëgg ba nduróog moom déggal taawruhu mu ngi koy ay ay loo almadaayu ay tagg lil masaaya ak ay mayam fa hëzal karimu góor gu tedd gi rafiu shaani ku yëkkati ko ay mbir la mu taxawal foofu ñu tagg alaaji malik la sëñ babacar di wax maam haadi turé ca la bokk maam haadi nee na malik abal habibi salilul xudbi ousmana waxidika asrika tabidan aifana mam mansour way na alaaji malik si cheikhun taqiyun la yuzannu bi ribatin ala istiqamati bil ilahi muani cheikh seydi alhaaji malik si kenn ku nekk way ko maam haadi turé ñoom ñëpp kenn ku ne jagleel nga ko way xalal maam ablaye sow bu dagana jagleel na way fa yaaman rama salaamaaleykum مقصدنا بمدح الموت فلا تفنل مناقب في العلان منصور sama gan ñapare mën ngeen ma leena dugalal ñu daal di toog en attendant ay ca bu ko defee bu ma dugalee quelque daal di leen dalal ndeysaan ah, ñu ngi noonu salaamaaleykum waaleykum salaam wa mbaa yëg nga ni ziare naa la Muhammad Mbay sama turando mala mal mala daq ziar ma ma ziar yaay sëriñ bi ngi lay bégee bu baax na nga ma nuyul Cheikh Diaw de man la Mouhamed Sidibé. waaw da doon waaw eh Mouhamed a ngi noonu maa ngi lay bëgg tërëndoo tey sama tërëndoo yi rek koy dugg. waaw waaw di la ziar baax di kontaan ci heure bi. amiin waay tërëndoo. da ñaan maam Omar Ndiaye. ndeysaan yàlla yàlla guddal faram. amiin yaa rabbi ak yokk ko wér mu moom ko a dégg moom ñaanal ma sama directeur rek après nga bàyyi maam Khalifa dinaa ko gis ñu doog ko ñaanal. it nga xam ma ne Serigne si sama ba Serigne Sidi Ahmed yàlla ba ma joxee wér ba ma joxee wér maam euh, Pape Khalifa Ndiaye ma sart yi. yii naa la xamal dara nag de. nee naa ah. leen ay sëtu Serigne Babacar lañu de billahi soxna Xadi see leen jur de. bala nga ak ñoom. bala nga kaa xam nga jaxasoo ak ñoom. ah dinaa la xamal dara de. ay nitu yàlla lanu de. dañuy tu rek allo waaw. waaw waaw waaw dañuy làqatu waaye eh, eh, loo loo làqatu làqatu feeñ. sur kër du ko. maa la wax loolu de. <laughs> waaw ñu ngi lay ñaanal Mouhamed Mbaye di lay eh, wax ne yàlla yàlla yàlla may wér. amiin yaa rabal alamin yàlla yàlla guddoo sa fan. amiin yaa rabal alamin boole la sa sëriñ ba sëriñ Mouhamadul Mansour bu Seydi Jamil. amiin waaye amiin yaa rabal alamin yàlla yàlla yàlla bu mu gis lu mu lay. amiin yaa rabal eh, alamin ñu ñu ngi leen di ñaanal yàgg njëkk sàmb yëpp di di kontaan bu baax. ndeysaan yéen ne ko moom. waaye di nuyu nag sama sama xarit sama doomu ndey sama seex Mbaye. muy kan. tag taggatu yonent bi Moustapha Mbaye taggatu yonent bi euh, bu ginnaaw. waaw waaw waaw waaw waa waaw waaw waaw. yoo xamante ne xëy na euh, wax téléphone bi moo tax mais man nag ñoom Mansour Thiam ak ñoom ñoo bokk kii ñoo bokk benn groupe groupe Sopp Daba. wax nga dëgg wax nga dëgg ah Mansour Thiam la ñu bokk groupe. oh mu ngi noonu dina dellu si léegi ah, maa ngi koy jaajëfal di ko kontaane bu baax a baax Mouhamed ah, Sidibé waaye tamit di ziar bu baax sama waa jooju nga xam ni nee naa leen ku may déglu foo jaar daal di siiw Cheikhou Diaw ah, ma nga ba foofu rudda boon moom nag nee leen seetu rafet yi moom mooy borom sama xarit boobu la nga xam ne léeg-léeg ma daal di toj daal di fa barasti ku mbëkk fenn mu daal defar daal ma ay ca doxalal dem sama xarit du béggee ko ku dugg daal di ko jël لله الخير سيئا لمن من كل وسوس حبيب هذا أفعال الأشواق والصيح لملك من كل وصف حميد هذا فعلا تهديد رجاء البرايا يوم مصر سيد الحادي مالك يا من يريد جنان القلد يسكن متقدما طلب المفتاح تحصي لحلم من كل وصف حميد ay ci mu ngi nonu dina la xamal dara ah, sa su nek rek bu yaram bi deme bay tang nga daal duggal dugal way damay bayyi ba lendi ma commencé at firi bi xam nga lima ma 24 euh, euh, décembre dama dem takusan, dem gam waaw bidenti nak, xam nga fani mom xawma luma dal mais ma ngi bidenti de ma ngi bidenti rek fani dal dama fogni biris la buma dugg tay dama yewu julli fajar ñu ma toogee rek rëcc le 9 h motax tay bi may xey dal wa melni kun dakande de wextal de la def moom daal laay def ku ma romb de nga may xool ma foog ni sama weexaay bi la waaye dégg nga kooku Pape Malick Mbaye ndeysaan sama rakk la yaayam ak sama yaay ñoo bokk benn baay waaye wow dinaa ko denc insha allahu taala bu euh, bu bu bu lëndee euh, altine la am xasida di jour ah. mais damaa gëj a dégg Maodo tàgg na yoneen xanaa yaa changé programme bi ku ko changé directeur lay waxal lu leer directeur yi ñu may déglu de ayca 88 628 0078 salaamaaleykum waaleykum salaam wa ay ca sang bu tedd bi ziare naa la. Mouhamad nahnu kazalika. ayca kooku kan la. kooku Thiam Seck la. Thiam Seck. waaw Thiam Seck dëkk Sam Thièj. dëkk. Sam Thièj. Sam Thièj. waaw. ayca maa ngi lay ziar bu baax Sam. nahnu kazalika barakallah. ayca naka coono yi. maa ngi nu ngi sant yàlla bu baax di la ñaanal yàlla. amiin yaa rabbal alamin xam nga lu ma gën a neex ci say mbir. Ah. nit ñu baax ñi lay ñaanal. ndeysaan. buñ la ñaanalé ba pare suwat nga wax amin damay top ci yow né amin amin ya rabbal alamin bu ko yalla nangulé rek nangul mako waaw waaw yalla do ko nangul seetlu naa ne samay mbir tan yépp dafa dox ndax limay naan amin ci say ñaan yalla xam nako légui ni rek benn baye ndaysan baye ba ya jaxaté surtout yonent bi lama nax naax nax la mi ngi ah, ah. mi ngi may vocal légui di ma ñaanal ñaan bu rëy rëy way ci man amin ya rabbi Nek sama baye nak nek sama confident bu baakha baax amin ya rabbi ma ngi siaré sama yaay amin am nga fayda de di ko ñaanal weer. wallaay bay Sam. di ko di ci di ci boole say waajur tamit. amiin waaw sama papa ak sama yaay da bëgg naa leen bëggu leen bëgg ma bëgg leen. barakallahu barakallahu barakallahu na leen yàlla dolli sutura. amiin yaa rabal alamin. yàggal leen fi ñoom ñëpp. amiin yaa rabal alamin. ci barki yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. di di di nuyu sama rak uh, Ibrahima Seck. Mm-hmm. ñu koy wax maam Guru. ndeysaan. ak Rokhaya Seck. ndeysaan. ak uh, Astu Seck. ndeysaan. Mariam sekk ñoom Mariama ñëpp. ndeysaan ndeysaan waa kër gi yëpp daal maa ngi leen di nuyu ñoom Khady fay yaa ngi may wooye fan. maa ngi lay wooye fii Pikine. ah yaa ngi Pikine wante maa maa nga dëkk fële dëkk bi ñuy wax sam ba naa la. ah ayca ayca ayca waaw waaw waaw waaw. dama lay far di déglu chaque jour. wallaay ndeysaan. waaw émission yëpp dara duma ci raw. ndeysaan xoolal loolu rek. di ñaan yàlla sutura. jeex na euh, euh, du mooy ma Baye Sam ay ca mu ngi noonu saa su ñëwatee dinaa ko dugal jël tur bi bind man nag ku may déglu faw ma di di tudd sa tur waaye ku ma dul déglu nag moom ne la rombe dama lay tàllal loxo rek ñu la ma yaa ngi ci jàmm xam nga li ma doon wax a ngi noonu sànq Pape Malick wax na ko fala tara ahadan xanaa xamoo ni Mansour kenn ñaawul kenn ku nekk ka nga àndal moo la ñaawal boo ñaawee da ngay ànd ak koo gën a rafet boo gën a rafet loo ñaaw ñaaw sa taar dina feeñ Cheikh na Tidiane Serif bi mu ñëwee dafay fekk tarixa yi moom Cheikh maamam yonent bi jox ko salaatul fatih mu daal di ko ko doxal yoor yoor la ko ko jox Cheikh na Ahmad Tidiane Serif waaye dàq intérêt personnel daal di indi intérêt général ni maamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee ni toog bi may toog lii nga wax yëpp ni bu ma jëlee tarixa bi ci man la yem matatu ko ndax yàlla daf laa yónni wa ma arsalna arsalnaka ila rahmatan lil alamin wa ma arsalnaaka ilaa kafatan nas bu fekke ni tariikha bi buma ko jole man Cheikhouna Tidiane ci man la yam bayil ma nekkon ci lima nek mamam niko dedet lan nga beug mu niko ñu continuer ko kep ku bok ci ñun daal di ci tariikha bi mu ngi nonu garantie yaa ci ca tulab waxna len ko lu bari ula damaanul mustafa al salam alaykum li hizbihi mawtan al alaykum salam alaykum mu ngi nonu dina delu si man sarti tarixa bi man Mansour neex na ma waaye xam nga sarti tarixa bi yi ma ci gën a neex mooy man damaa ragal dee te boy génn aduna bu fekkee ne da nga jël tarixa Cheikh na Tidiane Chérif xana xamoo sukurat yonent bi ba koy netali bam koy laaj jibril jibril dafa ni ko sukuraat buñ koy natable ko dafa melni téméri rab ñu jël ben rab di la ko di tàngal bam xonku ñu la koy tek bam mu sedd bam ma témér non la sukurat mel yonent bi ni sama xet jëlal na leen sen 99 kuy dé yobale ben ben bobu kenn ku ne diñ ko yóbbu waye bi Cheikh ñëwé tarixam taxaw dafa ni mamam yonent bi bëgg na boole ci sartu tarixa bi ku jël tarixa Cheikh ben bi yàlla wañi lako mo moo waral Seydil Hadji malik wax ci ci faakiha taxfifu rabbi sakaraatil mawti anhu min al mawuti duna al fawti boo jëlee tarixa Cheikhna Ahmada Tidiane Chérifa ah ci sukkuraat ah, doo ko yëg da ngay nelaw ba dem jot loolu maa ngi ko xamee ci borom daara ji borom daara ji mu ngi nelaw ca France talaata àllarba alxames aljuma samedi dimanche ci la borom daara ji daal di wuy ji boromam foofu ca hôpital nii xam naa ko ci Babacar Mbaye mi yoroon porte parole bu Fass ah, bi ñëw suba la laylatul xadri moom moo jëndi bagage yi ah, bi mu julee fajar wasifa fi mu toog fa la wuy ji boromam daan métti métti do ko yëg bima ci gëna neex nak moy bir bammel neena len tuba bi ay nañu lool li xew coupe du monde ba dañ koy def ci ay satellite fo tolu diko ko wa lutax duggu tax ci almer yo fi wutal ñu ay satellite yo xam dañ koy branché ci néew yi bu ko defé ñu daal wut télé spécial daal ko tuddé télé mawti nga xamni ku ne ci bir souf lo nekké dañ koy xam waye gis nga mënu ñu ci dara waye Cheikh neena ku duggu ci bir souf bo nekké sama talibé do fa yëg dara wala yarawna fil quburi ghayra ma yasruhum subhana khaliqi sama yàlla dafa lay bëggal ci bir souf waye bima ci gëna neex moy bu yowmal qiyamé kenn ku ne na sa bakkar tollu no noonu la sa ñak di toll waye suufu aras kep ku jël tariqa cheikh danu la fay keral deegal alaaji malik mang koy wax ca téeréem boobale wala yarawna izlaaluhum fi zillil arshillah yawm alqiyamati fa allah waye mu ngi nonu buma ci gëna neex moy bi nga xamni kenn ku nekk na sa bàkkaar toll nonu ngay jégué sirat ñi dañuy ram ñi dañuy direeku ñi dañuy daw waye bu yawm alqiyamé ña ngay jaar ci ginnaw malaika yi jawazuhum kawahilal malaika ala sirati minnatan lil maliki waye man nak bima ci gëna bëgg te choisir ko moy dëkk ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni ni dem àjjana dinañu bari waaye du ñëppay dëkk ak yonent bi da nga koy xool ci gàmmu Tiwaawan bu Tiwaawan jotee da ngeen di bàyyi ko fii Ndakaaru dem gàmmu est-ce que a xalifa bi yéenay bokk benn daal déedéet du ngeen gis sax xalifa bi te du leen yàqal dara ci seen gàmmu man dinaa gàmmu ji ba ñëw ci télé bi laay gis xalifa bi noonu la aljana mel dina am ku ne aljana def fa at yat te du jëkk dëkkeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye Cheikhuna Ahmad Tidiane Chérif nee na ku jël sama moo tax yéen jigéen ñi bu fekkee mënoo leen koo jël bu yóbbu ngeen wut ay borom kër yu mel ne Oustaz Mouhamed Mbaye mu yóbbaale leen de waaw waaw xanaa xamoo ni boo amee borom këru taalibe Cheikh moo lay garanti moo lay yóbbu aljana wa yadxulu day dugg aljana te aljana xaawil wir di ku jël tarixa bi wa waalidin day yóbbaale bàyyi wa zawjatin day yóbbaale soxna kasal walidi day yóbbaale doom te ngeen wut ay borom këru taalibe Cheikh soxna yi dëkk bi dafa metti fi mu toll nii de situation bi daa xat nit ñi amatuñu jotu ñaan bu ngeen fi jógee wuti leen ay borom këru taalibe Seex ay ca ma daal di dalal sama gan ñi ñu ngi noonu. jooyte noppeegunu ku sopp si laaji Maalik si defar ñuy solo xonu màggal ko Mansour bi may ñëw ci suba sama oto am na woy bu ma déggoon nga teg ko waxoon naa la ko maa ngi nuyu bu baax di ko ziare euh, mu ngi noonu Maguette Diagne gànket bala Maguette maa ngi koy nuyu di ko ziar semaine bi passé xaalis ba bari la ma yónnee <laughs> asfiya yi nag day fay ci biti de <laughs> léeg-léeg nga jéem ak sa téléphone bi daal di sonné naka te soppi asfiya la ay ca mu ngi noonu bëggee jéenaa bu baax a baax ñaanal ko jàmm salaam sutura yéen ñi dëkkee côté nu mu tuddati waay attekaay boobu nekk Pikine man ay attekaay ak ay police ku fa dëkk du ma la seeti <laughs> man ay policier sax bu ma la rombee nga may laaj ay pièces dama la koy jox sëgg ay cam ngi noonu ma daat leen dalal nag ñu nekk ay ndaw ñu baax nekk ay ndaw yu jàmbaar nekk ñu bëgg tarixa bi seen tur nag mooy ashabaanu ramahiyun na ñoom xaw ma kan moo leen yéen kan moo leen tuddee tur boobu sax ah xarit ah da ngaa ñëw rek bokk ci daayira koo xam da nga naan ko waaye yéen ku leen tuddee tur daayira nga ni wàcc waawoon kan la ci nga ni <laughs> ñu ne waa daayira bi àndoon subbaanu ramahiyun wala yaxilu lil muslimi an yafala fi'lan xata yaalama xukma laahi fiihi Mansour da nga may tëjal 10 minutes ma daal di dalal sama gan ñi nga xam ne yàgg nañu fi tey ñoom ñoo ma fi jiitu bi ma ñëwee fi laa leen fekk waaye ñàkkul ma am ay njóobeen ak ay njaayeen ndax bi leen fekkee itam am ngeen fayda ju toll fekk naa seen gémmiñ yi lewetul ma xam yéen ngi ci seen bopp noonu la nit day bëgg boppam ginnaaw ku dee dootoo lekk ah Mansour fii laa leen fekk ñuy ndékki ñoom ñoom ñuy ànd ñëw defe naa kii la nu mu tuddati Binta Binta ak kan non sama xarit de xam naa dafa suur doon nelaw ak nu mu tuddati Paamudu Paamudu dama koo fekk ci table moom mu añ mu ndékki ba suur ak ak kan këye Ngóone Ngóone moom mooy sama xarit ak ngeen ànd ak euh, Faatu juuf Faatu yow ñii bi di ñëw mburu leen indi naa yaa leen ko jox séeréer yi ak kële ci biti. salimata moom de dafa dar téléphone bi ci nopp bi ndeysaan sali maa ngi lay ziyaar mu ngay reetaan kontaan lool lool lool ànd ak sama waa ji euh, nu mu tudd ahmadin ahmadin ahmadin Fall Fall ahmadin tërënd sama tërëndoo gi noonu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, muy daayira euh, Shubbaanul Ramahiyun mooy ndaw ñi nga xamante ni la maam Cheikh Omar Foutiyu Taal waxoon euh, Jawharatul Kamal li koy sàmm mooy rimaax rimaax moom la maam Cheikh Omar daal di bind Jawharatul Kamal moom ñoom nag ñooy ndaw ñi nga xamante ni Ramahiyun xeej nag moom yaakaar naa ni moom foo ko teg mu daal di bënn waaye bënn googu yàlla ne ci pas-pas yàlla na ci ndëgër laay yàlla na nekk ci bennoo yàlla na nekk ci dëgër loo ay ci ñu daal di fi ñëwoon tey ah, ngir waajal seen bés boobu nga xamante ni a ah, ah, gis nga ñii boo leen gisee xam ne ay ndaw lanu ñii ñi maa leen mag te man du ma mag ndax amaguma ñeen fukki at waaye xam naa ni euh, euh, ñoom ñii maa leen mag loolu moom xam naa ni lu ma wóor la lu ma leer la amaguma ñeen fukki at nag waaye maa leen mag waaye gis nga euh, mënoon nañoo woote yooyu ndaw ñi di woote ah yooyu nga xamante ni dañ koy def bu 31 décembre jotee Euh, euh, wala 24 decembre waaye ñu am bés boo xam ne li tax ma ci jàpp sax sonn ci euh, mooy nit bu nekkee ci yoon da koy dimbali jàppale ko ñuy waajal bés boobu nga xamante ni ñoo ngi koy def le 31 décembre la ay ca kan laay njëkk a nuyu sax maa ngi nuyu sama xarit maa ngi leen di ziar bu baax a baax yaa Sida ay ca nabaat bi kawe ginnaaw ndéeg nga ba pare. di nuyu suñu mbokk yi ñu toogal suñu waa daayira daayira Touchou Ban Arimahi mm-hmm. di la wax ne yegsi nañ si jàmm ñoo ngi di di déglu. Eh, tey de am ngeen problème ndax xama xamoon naa ni bu ngeen dugg see xol bu sedd bi ngeen yore <laughs> du ñàkk ñoo xam ni ah, fi ma leen fekk daal eh, xaw ma nu émotion la tubaab di wax. Aïcha Hamid maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay yow Oustaz Mouhamed Mbaye. jegeel micro tuuti. Ah, maa ngi lay fay yow Oustaz Mouhamed Mbaye. Uh-huh. di nuyu mbokki auditeurs Asfiyahi ak téléspectateurs audi euh, Asfiyahi yëpp. Uh-huh. di nuyu seen directeur Mame Omar. di jël ñëw bi di ko teg ci xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour mu teg ko ci loxo njabootu Cheikh Seydil Hadj Malick bi yëpp di nuyu mbokk yu baax yi ñu àndal di Serigne Mouhamad Ahmadine di sëtu Cheikh Seydil Hadj Malick feggoog sama soxna Binta Ndiir ànd ak sunu coordinatrice soxna Ngone Bànne di nuyu soxna Sali soxna Fatoumata di nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu di ñu suivre ak waa daaira bi yëpp di daaira du Shubaan Al Mahyun ما شاء الله تعالى مغي نونو اه ديكو زيار بو باخ سورتو شيخ سيد الحاج مالك بوبو ايو امام ماغ نوي ديلا زيار ندخ نوكو زاليك حاج محمد نك الخميس تاي نيغي سانت يالا الحمد لله وا سيغ بي غاي دانيو لا جيتو واو لول دي امنا ولا داغا ديفو خال خول اخلاق بانس الانبياء لي زهوري مقدمه فعل ولا تنمي واو ماغي سي ماغي سي جيغال بو باخ ايتا زيارنا لا ندخ نوكو زاليك محمد نيغي لاي زيارا بو باخ باخ دي جيل نيو ري اك زياره di ko wékk ci kaw sang bi Pape Amadou di rafetlu jotaay bi waaw di rafetlu tamit xam-xam bi yal na yàlla yokk di gën a leeral amiin yaa rabbi yaa nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam amiin yaa rabbi ndax di nuyu rek sama mbokk yu baax yi ma àndal ñoom góone ñoom góone kii soxna Sali soxna Fatou soxna Binta ak sama waay ji Pape Amadou. Pape Amadou waaw Binta moom jot naa Binta lu tax moom bu suuree rek ndeysaan ndeysaan day neex deret Binta remarqué naa ko ñaari yoon Binta li ngeen fi ànd di ñëw yëpp bi ma fi njëkkee gis ak yéen Binta laa gis mu téye lekk ci loxo bi. tey tamit gis naa bi ngeen àndee Binta moo doon génne mbuus mi xanaa Binta moo yor wàllu lekk gi ci gàmm gi Binta ay togg togg yi xanaa ay ca gàmm gi ah, fan ngeen koy defee maam. defee fële ca face Delorme rue 22 prolongé ginnaaw kër Serigne Moustapha Sy Djamil. loolu de xanaa invité ngeen ma. waaw bu baax. Euh, dama dégg tur bu raar mën naa wax ni tey laa koy doog a dégg as suba euh, subaanu ram euh, ramaaxiyun tey laa koy doog a dégg kan ma leen ko tuddee. waaw Serigne bi loolu. sunu Serigne sunu kilifa Serigne Cheikh Omar. bu sunu bàyyi Seydou Mouhamadou Djamil yal na yàlla yokk leeral. radiyallahu taala anhu moom moo xalaatoon tur bi jox ñu ko. waaw gannaaw ni nga ko waxee rek Subaan ñu siy dégg Shabab. ay ndaw rimahiyun yoo xamante ne ñu ngi xeex. ak xeet googu nga tudd sànq. waaye nag jëmalewuñu ko si lenn lu dul si diine. macha allah ak sunu tarixa maam bii di tarixa Seydina Cheikh Ahmad Tijani Cherif. radiallahu taala anhu gannaaw nag seeti guñ ko seeti ak jël sunu bopp. ak sunu yaakaar si kër Seydi Mouhamadul Moustapha si Jamil kenn si di euh, si njabootam. Mm-hmm. te muy sudu buntu. Mm-hmm. si kër Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu mm-hmm. moo yëkkati tur boobu jox ñu ko xaaj. di ko ziar bu baax a baax euh, moom Cheikh Omar euh, si nga xam ne nee naa leen am na lu jafe moom Makkatal Mukarrama fa la ñu ko mayee soxna ca jamonoy xaj nuyu ko bu baax moom Serigne Cheikh Omar def na def bis mu def lu ma frappé dama ñëw faas ma gis ñu wàcce mat mu sol jeesineer bu weex. bi mu ñëwee mu gis taalibe yi xam nga taalibe yi léegi sëriñ su bari amatuñu ay taalibe ay fan sa club la nu am mais mu gis taalibe yi daal di toog man bokkoon naa ca ña toog ñun ñëpp toog xam nga rek man dama naan comme sëñ bi ma fi indi sëñ bi laay mais mat bi fi mu tegee gis nga jees neer ñun tey buñ ko solee dañuy moytu foo toog da ngay lem yàlla boo sol nag buñ la aal nga ànd ak kilo ko aal fooy toog moo la koy njëkk a wax xoola fi ngay toog faxasal la mais moom mu jékk ba ci ak ak ñetti abdu yi muy jël matt yi ci biti di am ku muy jox mu yégal ci kaw mu lay wan ni kon par force nit taalibe looy am ci àdduna rek nekk taalibe moo ko ëpp solo gis nga bi mu jógee di téye mat neewul kenn jugal ñun ñëpp dañoo dawandoo dem ci mat yi di jël di dugal ci kaw ndax liggéey boobu am na jaamu yàlla boo xam ne ci biir jaamu yàlla isa aradu arada la bu ne yàlla defal yàlla def amaana mën naa dox ba sonn xiif dab ko mu ñëw kër Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha lekk ba mu fa lekk rek yàlla mën naa jéggal kenn ku nekk bàkkaaram soxna Binta bis ba kañ la bu reetaan nag ci ayca <laughs> bis bi kañ la. bis bi le 31 décembre la incha allah gi mi ngi amee fii ci face de l'Orne moo ngi commencé à partir de 19h le conférencier bi mooy professeur Mame Ndiaye. ah Mame Ousmane Ndiaye benn Mame Ousmane Ndiaye nag war a fi woon tudd war a fi tudd turam Mame ah, Ousmane dafa ni daf maa soob. invité na ma ñaari yoon réer ma daal di faussé te leer na ma ni boo ko tuddee mu may dégg ajjuma laa mujjee joxante ak moom ba mu tegtal ma yëpp ma daal di dem fi mu toll nii àjjuma bii la ma war a réer këram te xam naa ni tam ma faussé ko bëgguma nag mu siiw damaa bëgg mu yam ci sama diggante ak yéen ñi toog waaye xam ni damay faussé àjjuma bii di ñëw lu waral ngeen di def gàmmu googu ak kan moo leen jox xalaat bi. xalaat bi mu ngi juddu ci projet boo dañ ko mhm. euh, idée bi ngi ci Ngone Bane mu am si pas-pas bu mat sëkk partage ñu ko accompagnement euh, jour gàmm gi mooy nekk euh, lancement au projet bi. jour gàmm Tivaouane. non non gàmm bi le 31. ah gàmm bi ah soxna Ngóone mi xanaa. <laughs> mais soxna Ngóone mi mooy seen lan. mooy coordonnatrice bi. xoolal na bii xaw a dem ne touti tejeul ma na micro bi dem ne wala soxna Ngóone rap la nak boko ko gisee rek da ngay xamni lepp lépp ci soxna Ngóone ak bari affaire mën naa dem àcc na bee dem touti Imam euh, yow lan nga ci bés bi. ban fonction nga ci yor. ma ngi ma ngi ci pôle communication bi. macha allah waaw la mom la ma mbokk yu baax yi dékk. Mm-hmm. ngir lépp loo xamante moy moy mooy mooy bis bi. Mm-hmm. wala lepp lo xamantene ci dina jëm ci walum projet bi. Euh, tay dama remarquer ni duma gan ci mbiri donte ndaw dama gis ni daayira yu bari bu daayira jotté do len gis. waaye bu programme jotee ñi daan daw daayira yëpp dañu daw ñëw fees dell ci mbooloo mi te ñoo gën a compliqué ci daayira bi mbàyyi na amoo leen problème yooyu ci daayira bi waaw loolu loolu wax nga lu am solo Haj mm-hmm. nag du du ñàkk si si si si groupement yi mm-hmm. waaw te damay jàpp ne xëy na ñenn nañu mën nañ leen ko jéggal nag ñàkk jot mm-hmm. waaye ñu si ëpp ki tamit pas-pas bu des laa koy jàppee waaw nag bis bi comme 31 bi ñu jàpp lépp loo xamante ne dinañ ko def si wàllum organisation wala communication wala lépp lu si wax sottiwul si bis bañ koy def. dëgg la waaw lépp dafay jiitu. di si mel ni mbokk yu baax yi de boobu ba tey ñu ngi daw. Mhm. amul fu ñu demul ci Sénégal. dëgg la waaw si région yeeg fépp la ñuy dem. Mhm. ngir rek préparer bis bu 31 boobu ak projet bi nga xamante ne moo nekk si ginnaaw. Mhm. kon nag boo nekkee membre ñu am bis bu ñuy waajal. yaakaar naa ne ba ngay adhéré daay adhéré woo si bis ba. da nga nekk membre boo xamante ne membre bu fonctionnel ngay nekk. Mhm. waaw charte yi nga xamante ne moom lañ moom moom nga tëralanteeg moom nga nga nga nga fexe ba ba tegu si. mais mais mbaa amul ñu mel ni man man ba ma gëj a nag na de ñoo xam ni boo leen laajee ban daayira lañ bokk dañ naan la sabaanu ramaaxiyun te boo xooleen seen tur ma nga ca kaw a kaw a kaw waaye kosee nat bu dee 100 francs la wala 200 ba tey ñu ciy nat te seetlu ñi ci kaw. ñu bari du nat am dalu leen. waaw loolu loolu lu ma si lu ma si lu ma siy wax rek mooy mooy mooy mooy yaakaar naa ne képp kuy taalibe cheikh jokk si kër seydine Hadji Malick radiyallahu taala anhu cofeel bu rëy mu ngi sa dund jëmale si góor googu Serigne Babacar Sy. maa la ko wax radiyallahu taala anhu moom bii nga xamante ne moo ñu baaxee daayira yi ñu xam ñun suñu jamono ñu ngi ñëw ba fekk ko fi te moo waxoon ne ku bokk daayira cotisation. nee na même boo abalee daayira bi cotisation boo génnee àdduna say mbokk dañ la ko war a fayal. am na góor boo xamante ni am na nitu yàlla bu gént ñu koy mbugal ci biir bàmmeel nitu yàlla bi bi mu géntee ñu koy mbugal ci bàmmeel bi mu ko laajee lan moo xew dafa ne ko dayre ba ma bokkoon daayira bi mujj laa nattul xam nga dégg nga wayu sëñ Babacar bi ni faral di way naan sunu daayira yi màndarga quartier la ku tardé fay Euh, daayira boo ci xasee ba bokk yow yaa engagé wu kenn forcé wu la te ufu bil la innal ahda kaana mas masulan euh, bu natt jotee yow yaa ñëw ni bokk naa bind leen ma ñu bind la ci yoonu yàlla bu natt jotee bari na ñoo xam ne tey man sama genre gi xam nga heureusement sax yàlla daf maa def firikat daayira ba ma nekk nattatuma ndax dañ ma teggin nan la ko te itam waaye da gis ñoo xamante ne du ñu natt waaye bu gàmmu Tiwaawan jotee buñ commencé génn beri euh, bor yi nga xamante ne moom nga amee bu la ngoonee naan euh, jàpp sa sa bor nga naan li amee ma ko fi bu buñ la calculer lee te tey bu Balla Gaye doon jaay t-shirt am wala t-shirtu euh, équipe nationale bu Sénégal dix mille francs dangay ngay jënd ko te man li ma yaakaar ay na yowén boo calculer woon li nga war a natt ci at bi ah 100 francs par jeudi wala 100 par dimanche eggul 10 000 francs te Balla Gaye t-shirt am jaral na la ko photo jaral na ko wala bu Modou lan moo tax tey daayira yi fii ñu toll ah, defuñu noonu lu dul di xaar te te kër Seydi Hadji Malick euh, li tax seen bis di xaw a jafe mooy bokkuñoo tey du du yor bool di wër ci mbedd yi. Mm-hmm. ah ñi daan jaay carte barkeelu sax daanaka léegi ñu néew a koy def te sañoo leen takk oto tamit ah, di jaay ay carte ci biti ndax kenn ku nekk ak nin la nin la yaree léegi bis bi nan lay tëddee ci 31 euh, décembre bi ayca. incha allah dinañu fa ameel benn wàccee kaamil. jagleel ko sunu maam Serigne Sidi Ahmed si bu Serigne Babacar si ñaan yàlla mu dolli leeru bàmmeelam tas ñu si barkeelam tas ñu si barkeem bu ñu paree wéyal euh, activités yi ba quatorze heures ñu pause euh, nit ñi añ bu ko defee ñu wéyal programme bi ba incha allah bu ñu jullee timis ba pare fas yéene fay amal benn wasifa incha allah bu ñu jógee ci loolu daal di ñëw ci xewal yi bu ñu xewaloo ba pare ñu projeté benn film boo xamante ne Serigne Cheikh Omar Sy moom moo ko réalisé ci Serigne Mansour Sy borom daara ji bu ñu jigee ci loolu incha allah vingt trois heures minuit programme bi daal di tàmbale gàmb gi tàmbali incha allah. ndax seen gàmb gi ren da ngeen ko utal thème bu maam Omar Ndiaye war a waxtaane wala. waaw ci lan la. ci jigéen jigéen mooy leket bi mooñ penc bu jag. Euh, euh, soxna euh, soxna soxna Binta wax ma ko ci tubab nak ngeen ko waxe ci tubab femme matérialiste xawu matriste ban la noonu. jéem ko ci tubaab. femme matrice ou génératrice d'une société modèle. waxat ko. femme matrice ou génératrice d'une société modèle. muy lan ci olof. mooy jigéen mooy lekkat gi moñ pentu pentu mi jag. ctt albaladu tayibu yaxruju nabatuhu bi izni rabbihi wala zi xabusa laa yaxruju nakki nakidan man nag sama papa sama yaay ndeysaan gërëm naa leen dugal ngeen ma école arabe waaye tamit waroon ngeen maa dugal école français de nga ne femme ma triste génératrice d'une société moderne am na baat yoo xam ne moom sama làmmiñ mënu ko ay ca kàddu yu mujj yi lan la sang bi waaw di di di sant euh, kilifa kër gi rek mhm. moom Oumar Ndiaye di ko ñaanal yàlla lépp loo xamante ne aajo woon wala bëgg na ko si këram gi yàlla na ko yàlla def. amiin si barke maam Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu taala an di woo tamit képp koo xamante ne mu ngi ñuy dégg si bis ba. mu ñëw en tant que invité waaye di xaar tamit ñaan si ñoom. comme ni nga ko waxee sànq rek ay ndaw lañu. ñuy soog a tàmbali. xam-xam bi nekku fi kattan gi nekku fi noonu. Mhm. mën-mën bi nekku fi. waaye yàlla mu am yàlla ñu ko yàlla defal. amiin yow it di la sant si disponibilité bi. eh man taalibe ñëpp laa. waaw dëgg la. imaam man bëgg naa ku fi ñëw balaa ngay dem sa bañ feeñ. incha allah bëgg naa ku may déglu di kontaan. Ah. ndax loolu lañ ma fi tege yow dama la waroon caméral sama biddanti tay bi ak ak bi may départ di dugg sama oto ñu nekk sama bundugal sax dinañ xanaa kii daa am ay damaa rëccale 9h 9h07 laa yeewu. damaa daw génn nii leen tey moom mbedd mi nun ma gise baax na xanaa gisuma imaam tey ni ma mel damaa daw génn ah soxna Ngóone tey damaa daw génn ndax yéen waaye mbaa invité ngeen ma ci bis ba rek ah imaam. waaw waaw waaw yow yow yow yow da nga bokk sax si invité d'honneur yi. ah waaw nag da ngay jëmbal kër Seydil Hadji Malick. kon kon dinaa ñëw. waaw bëri na bëri na luñ seetaan si télé bi. wala di la déglu a leexal xam-xam bi. amiin ah, ah, ma sol si bis ba ñoom ñaar man maa ko la koy jox mais bi li ci des bëreetul bàyyi leen ma sol tii ma daan tàngal rek acca <laughs> daal leen jaajëfal kàddu yu mujj yi yow ñan ak ñan ngay woo yaakaar naa ni jigéenu Medina ñëpp yaa ngi leen di woo ci bis bi ñu ñëw ak mbooleem njabootu Seydi wala xaaji Malick Sy radiyallahu anhu ah soxna. waaw si bis bi ñoo ngi woo képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah warati warati na suñu mbokk jigéen ñi nga xam ne ñoom lañ jagleel bis bi di woo képp ku bokk si njaboot du Cheikh Sidi Hadji Malick ndax daanaka bu ñuy sagu yàlla dëgg dañ koy tere mais tamit sant booy sant yàlla tamit di nga sant doomu aadama te bu ñuy sagu mën nañu wax ne Mamadou moo tax ñuy sagu donc ñu ngi si woo suñu mbokk jigéen ñëpp di ci woo bépp daara bu nekk Fass Medina Colobane gël Tapée ci environ yi ku ko dégg daal sa invitation moo ngi nii ah yow ndeysaan moom mooy wax lu waañ bi boo tuddee waañ bi xol bi day sedd ay ca sama xarit imam ñakkañ ñan ngay woo ci bis bi waaw oustaz bés bi ñu ngi ciy woo képp ki wuyoo ci tur ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah rawatina taaliba cheikh na ahmad tijani chérif radiallahu taala anhu rawatina waa kër maam cheikh seydil haaji malik woo waa daayira bi ñëpp ñu ñëw daayira yi nekk fas Gueule Tapée Médina Colobane ak Parcelles Padoue bàyyi ñu kenn ñëpp ñu ngi leen di woo ci bés bi di ñaan yàlla rek mu yóbbu ñu si jàmb ak salaam ñu tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim jeexale ko alhamdulillahi ay ca mu ngi noonu xam naa ne dañuy toog tuuti daal di may wéttali ah, ndax maa ngi waaja euh, euh, jeexal bëgguma ñu jug mu ñaawal sama caméra nuyu dama xaw a ragal sax euh, dama bëgg ngir wéttali ba ba ci kanam léegi ma jeexal defe naa fukki minute moo ma dese nuyu bu baax a baax sala sala nuyu naa la ndeysaan daal di ko ziar wàcc ko wàccuwaay mook Sayyidatuna Fatima Fatima nag mooy sama yaay sama juru jigéen Fatima la tudd ooy ma damaa na moon jol faama jaxaay lu la teeri xaacuy si boo ko fa gisee rek nga daal di ma ko tegal mu ngi noonu doomi kan la. xanaa xamoon ni man waykat laa ndoroon a doon dama daan woy gis nit ñi di ree ma jàpp ni dañuy am mbégte ci li may way naka man sama baat ci man rek la neex. dama daan gis nit ñi ndeysaan dañuy kontaan waaye bi ma xamee ni baat bi doxul ci laa ni ay na yéwén naa dem dugg ci prix ndeysaan euh, di jaajëfal euh, Serigne Ahmada Sy Jamil nga xam ni euh, daan na jël xaalis bu bare bari maa ngi remarqué ni mus na ma jëndal téere boo xam ne romb na lu romb ñaar fukki junni ñu ci waxtaan ci charte tarixa bi boobu maa ngi tiwaawan téere bu ma soxla ndeysaan mu daal di ma yónnee xaalis ma daal di jënd téere bi daal di ma boole bokk acca na góorgóorlu mook alxaaji Mansour Sy Jamil ñoom jang nga ko yoy yep ma daal di ci rey sama bopp ah, boole koog sharia be ye ñu mën xam nga nak nit mëno jang lepp imam salaamaaleykum. alaykum ma maa ngi lay ziar. ñu ngi ziar bu baax. ay ci koku kan la. ah Assane Mbodj la tuddu Assane Mbodj. dama laa woo ba pare mu dagg wala do taxaw bu nga àgg fo mu rës. ay ca wax nga dëgg Assane maa ngi lay bëgg wax nga dëgg Baye Assane ziar naa la. ñu ngi ziar bu baax a baax a naka nga def ak khamis bi. Ah, alhamdulilah ñu ngi ci xëy de di yaakaar yàlla jàmm ak xéwal. jamono ji tembe ngay déglu Asfiya yi 97 point 3 lan nga ci yëg. ah xanaa di ñaan yàlla mu jëmale ko kanam rek. amiin yaa rabal alamin eh, di ñaan yàlla it jokkoo xaw ndax xaw naa jafe bar ngaa dugg da sonn tuuti. wax nga dëgg waaw buuxante bi la rek. lu baax moom buuxante walla lu baax moom du yomb noonu. maa la ko wax fan nga may woy nii tembe. maa ngi lay wooye fii ci Noflaay dëkk bu ñuy wax Noflaay. Noflaay fu mu nekk. mu nekk diggante Sangalkam ak Mbambilor. ah waaw mos naa ko liir Noflaay. Noflaay waaw samedi bële paase maa ngi gàmmul waa Gorom. waaw ak saa mbaa gàmm nga nekk. ah man sëñ bi fu ma jaar ba waxtaanee yonent bi ak Alaaji Maalik moom loolu wóolu naaj sama bopp. xam naa du war a mënut a def lu neex de incha allah. waaw maa ngi lay bëggee di la kontaane baax Assane. ñu ngi ci yéen lool teewul ni maa ngi la woowoon di la wax ni la daal woykat yi. Ah, keroog ci ngoon sax xam ne keneen ku ma jot ku nekkoon ci rajo ma di ko wax man de woote woon naa ci suuf mu far dagg waaye moom itam yàlla dafa maa nattu keroog mu dagg ndax. ndeysaan dama dugg ci xur woo xam ne amul de rek mu daal di dagg. Ah, loolu dañu ngi koy jéggalu sang bi. Ah, waaw waykat yi waaw waykat yi daal moom yéen yi nga xam ni yéen a ne ci bunt bi see xam naa ne. tubaarikàlla miin ngeen woy yu neex yu jaar yoon. ndeysaan. miin ngeen ko de yàgg ngeen a ron tàntu Baye mbay doon de xam naa ne. waaw waaw. waaw woykat yi day wax dëgg yàlla day xam naa dana am ci ñu mu neex lool nag. waaw waaw jërëjëf. jërëjëf bu may waxtaan ak sama waa kër xale yi. jigéen ñi boo nee di woy di ñu eh, mu léegi kooku moom dafa woy fii. dégg nga dañoo xamul. xam nga nag Baye Sam waaw. Euh, gis nga jamono. Mm-hmm. tey ji gis nga booy woy woyu yàllaawe. Mm-hmm. nit ñi dañuy toog di la xool. dëgg nga way way yu yëngal tànk. Ah. li nit ñu yor ñëw daw jox la ko. Ah, ni kii yëf yi mën. te da ciy baax. voilà te xam nga nag yooyu la may wax rek nee naa leen gàmmu àll bi. Ah. ku fa ne di leen taril aarut ak bayaan xamuñu làmp yu leer da nga jég ba saa gis leen ñuy nelaw del tàgg yonent bi naa leen jug leen toog leen nuyoo leen jug leen toog leen ba fajar jot. Oh, waaye tamit waykat yi fii ñu toll. maa ngi firi yaa xutbu yaa xawf barki démb ma ne leen bari nañuy way yaa xutbu dañuy def ay fët parce que dañu daan dégg son bi tiimuñu xasida bi ah, euh, bari na ci bari na ci bari na ci way yoo xam ne dañ koy yàq waaw waxuma waxuma yàq bi sax ja yàq ci mhm. mais wax dëgg yàlla fu ñuy bi te ngir yàlla nga xam nit ku ñëw da war a dolli ko ci sa wàllu yàlla wallaahi dafa jar di bàyyi xel parce que am na ci woy yoo xam ne léeg-léeg nga dem ci tànt sa xol day tàng jër ba ba nga fay jóge te duñ ko yëg. waaw loolu de sëñ Moussa Fass Jamil daan na wax ni oh, mu ngi noonu daal dina dem sëñ Moussa Fass Jamil daan na wax ni ki julli fajar julli tas tisbaar tàkku santimis gue ah reer tëdd wàccoon ak yàlla bu dee woon ci guddi gi itam yàlla du ko ci topp dara waaye mu bàyyi ba 2 heures du matin mu sangu ba set sol yére bi mu gën a bëgg parfum wu jël xaalis def ci posam dem ci tante serigne safa Jamil neena nga fay wax ba yikiti fa sidutu deunam man Seydi Jamil responsabilité bobu attanuma ko yéen a ko attan moo souvent kan ni euh, bari na kat yi oustaz yi ak nangam euh, bo demé ci gam ba ñepp dila deglu jappal xel nit ñi lay deglu ñepp bu ngeen bokké tarixa amna ñu nekk ci pegg mi dila deglu sop la ta te soppeewun la tarixa nga leen sedd bayi leen euh, xel bu baaxa baaxa baaxa baax serigne babakar ci bu musaan di waxtaan dara ndax asaman ci xinul xol serigne babakar buñ né asaman ci xinul moy ça veut dire que ndax kenen raxuñu buñ né kenen raxuñu sëñ Babacar waxtaane tarixa bi waaye bu fekkee ne am na ñu ñu rax sëñ Babacar daal di waxtaane sharia bi ndax yooyu du moytu waaye dimbali nit ki la ndax ku weddi Cheikhuna Ahmad Tidiane Chérif la maam Abdou Aziz Dabakh waxoon fa munkiru xisba Cheikh Tidiane xis yu ko baani yow mi bañ Cheikhuna Tidiane Chérif sa gàccee ngi di ñëw moo tax am na kilifa gu siiw bu ne ci réew mi bu fekkee daan ngeen seetaan ah, ci koor gi grand plateau am na fu ñuy waxee ba muy wax man ni ko yow ci këru diine nga bokk waaye li ma jaaxal gisuma benn daayira buñ la tudde boo yor gisuma benn tiset bun la def ñes googu waa jooju man ko yooyu yëpp gisuma gars yi di la ko defal kon eh, am na itam ay buntu la yu la manqué daal di daal jëfal sama technicien Mansour ñaanal ko jàmm salaam ak sutura yàlla yàlla daal di ko ko defal eh, nuyu bu baax a baax eh, madame Mbaye moom ndeysaan day topp émission bi 24 heures sur 24 daal di ko jaajëfal mu ngi noonu Mbaye maa ngi nii wàcc léegi incha allahu taala yàlla yàlla defal ñu jàmm ak salaam ak sutura képp koo xam ni kontaan nga jàppal ni alkamalulillahi waaye képp koo xamante ni sa xol yëngu na jàppale nil ne parfait kenn matul yàlla rek mooy ki mat taqabbalallahu rabbuna si daan watana mi maa nuhibbu bihi bi jaahi yaasini léegi léegi ngeen daan di déglu journal bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu